président mu nii li mu yëg ni waroon na ko def ñëw seet si leen masawu leen ànd ak bureau bi yëpp nee na loolu ci lay continuer bi ci nekk. li li parce que danaa na li muy wax répétition la ndax ñi fi jiitu wax nañ ko waaye xëy na kàddu gi muy delloo mooy gërëm waa Aziz ñi nga xamante ne ñoo ñu dalal fii ci seen siège. tey mu ni ñu nekk muy suñu doom di suñu jarbaat. di ay liggéeykat nag nekk ay liggéeykat. dinaa ko moom ku liggéey la soxla. mu ni inaakuwaa nag coow li coow bari na waaye képp ku liggéeyul moom xëy na mën nga fa bañ a am place ndax liggéeykat léegi lay doxal te ay liggéeykat rek ñoo fa nekk. di leen ñaanal yàlla rek ci na fi bañ a amati mu ni yàlla na yàlla def ba lii du fi amati. du amati Touba mais du amati ci beneen marché bu nekk ci Sénégal. di gërëm nag l'ensemble de l'INACO bi ma ànd ak staff bi. waaw mu ni nag bu weesoo dina gërëm ñi nga xamante ni ñooy staff am nekk ay collaborateurs am yi mu àndal ñëw fii ci tey. ñu ay jeunes. nee na mu nekk ay jeunes. di ay mag. di ay mag. yu am expérience. di am ay mag yu am expérience waaye ànd ci aussi ak jigéen ñi. ànd ak ñun ci yëf yi ànd ak ñun ci xew-xew bi. waaw ñoom aussi ñu ànd ak président ci li nga xamante ni mooy xew-xew bi fii ci Touba. di gërëm di leen sant. li nga xam ne nag mooy li suñu liñ fi indi te ko feeñal. mu ni li ñu fi yéenee andi ndax joxe ko comme participation ndax masa woo ko ñu lakkale. xeeb ko lool nekk yéene ci ñoom. xeeb mu ni mu nekk montant boo xamante ni montant bu ñu xeeb la waaye montant bu symbolique la. Euh, dañ mu ni mi ngi koy jël di montant bi di chèque bi di ko teg ci représentant UNACOIS jàppoo. mu a jox fii. mu xool ñi nga xamante ni ñoo seq mbir mi muy un chèque. de dix millions. président Idi ànd ak jàppoo di ko. jox ñi nga xamante ne ñoo lakkale waaye mu nekk seen asaka yéene. di gërëm bu baax nag Baye Mor Ndiaye. nee na di garam bu baax Baye Mor njaay suñu nga xamante ne mooy suñu doyen. lii mooy participation yi mu ni montant bii di chèque bi mooy participation bu Unacois jàppoo. fraction bu la rek. na montant bu ndaw la bu ñu xeeb mais bu mu nekk montant bu symbolique rek. bu nee na bu ñu fi jógee dañuy dem Kaolack ci ña lakkale woon aussi dem seeti leen. ñu leen di ñu ngi gërëm yëpp di sant ñëpp di gërëm également journalistes yi. le président Idi Thiam dafa ñëw fii ci Touba ànd ak une forte délégation du bureau exécutif pour seet si d' abord commerçant yi nga xam ne dañu lakkale mais jàppale leen ah, soutenir leen ndax xam nañ ni euh, lakk gi lakk gu metti la ay milliards ak ay milliards ñoo ci dem. mais ñëw également ak ay réponses yoo xamante ni bu ci état bi tegee tànkam commerçant yi obéi conforme wu dinañ dem ba am marché yu moderne yu répondre ak ay normes ba lakk mën nañu yaakaar ni du fi am ku loolu moom dañ ko tënk ci benn mémorandum bi ñu dajeek le président Macky Sall jox jébbal nañ ko ko wax nañ ko xalaat yi nga xamante ni am nañ ko également par rapport ak def modernisation des marchés mais également euh, nañu intégré ci seen politique de modernisation parce que gis nañu état bi mi ngi commencé di dem ci dëkk yi di xool naka lay def pour moderniser ko mais na intégré quand les commerçants na intégré les acteurs pour que résultat yay génn ca waxtaan yooyu mu ma nekk résultat yu jariñ commerçant yi mais également mu mën a nekk une solution par rapport à lakk yi nga xamante le mais seet leen d' que quand même ku lakk la ay milliards xëy na boo ñëwee di ko jox yenn montant yi xëy na c'est lu symbolique la waaye président ànd na ak bureau leen ko. pour vraiment loolu mooy contribution bu INACO fii kat dañuy daal dem Kaolack pour aussi seet commerçant yi nga xamante ni moo fa nekk. ñi nga xam ne aussi dañu lakkale woon waaye li ñuy wax rek mooy bëgg nañ daal lu mel ni moom mu jóge ci réew mi te loolu ñu ngi interpellé état bi à ce que mu wut ay négociation wala ay waxtaan yu gaaw ak commerçant yi ba ñu mën a teg ay solution yoo xamante ni lakk bi am ci marché yi wala du gaaw